Je suis madame Diène le conseiller technique ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants ma suis accompagnée mon collègue bi euh, conseiller technique du cabinet ministre Nous avons fait une fekk si suñu sœur une euh, BNP Paribas monsieur Ndiaye donc ñu ñëw assister cérémonie de lancement moy plateforme digitale bi nga xamni wa waa ñoko défar fi pour accompagner jigéen ñi muy une plateforme digitale by from women jënd leen ci jigéen ñi nga xamni moy initiative bo xamni ñun ñep dañ cee kontaan rafetlu ko lool ndax ku ne xam na ni ministre de la femme de la famille de la protection des enfants moom la ñu dénk lépp loo xam ni moo jëm ci jigéen autonomisation muy épanouissement de la femme muy accompagnement de la femme kon képp comme am initiative bu rafetee ni bu mel ni, di accompagner jigéen ni, moom nga ko defal loolu nag mu nous ko ci parce que bu yàggul rek ci mois de mars dernier il est féministe de la femme woote woon les assises de l'entrepreneuriat féminin muy assises yoo xam ni dafa woote woon jigéen ni leen dama bëgg ngeen ñëw ñu waxtaan xool jàmbat yi ngeen xam ni moom ngeen di jàmbat ñu mënuñ ci waxtaanee ci suñu biir tënk ko jox ko son excellence monsieur Macky Sall président de la république mu defaluñ ci ay saafara. loolu nag bi ñu ko waxtaanee mu am yu fàcc yu bëri yoo xam ne génnoon na ci bi ci jiitu ñu ne jigéen ñi ne ñun dey bëgg nañoo liggéey waaye jànkonte na problème mu am suuf ñeneen ñi ne ñu ne bu ñu amee suuf am nañ problème financement ñeneen ñi suñu amee financement ba liggéey ba pare am nañ problème mu jaay ñeneen ñi ni ñun formation moo ñu manqué loolu yëpp ñu tënk ko ci ay këyit commencé nag plan d'action bi plan d'action boobu ngeen gis moo waral fan yee ministre woote fii woon les 96 heures de l'entrepreneuriat waxtaanaat ak jigéen ñi ne day mettre ay coopérative pour accompagner jigéen ñi dans le financement mais aussi organiser leen ci loolu nak dafa am benn fànn boo xam da cey génnoon muy digitalisation bi nga xam dañu amone benn projet pour mettre en place benn plateforme e-commerce muy plateforme bi tay nga xam ni UNIFAM moko ko lancé te ñu yag ko ci accompagner muy programme bu yag bo xam depuis 2018 lañ ko commencé woon tay nak plateforme bi paré ñukay koy lancé pour jigéen ñep mën cee dugg commencer jaay sen jaay mais aussi du jaay rek mais y a d'autres informations yi nga xam aussi amna solo muy information ci climat bi information ci accès à mais information aussi ci financement loolu yëpp xam naa bu ñu ko gënee leeral jigéen ji dinañ ko xam bëgg ko ñu ciy gërëm nag ONU Femmes di ko ci accompagner di ko wax ni ko projet bi suñu projet la ñoo ko jël dañu koy jël yóbbu ko ministère gën koo yaatal jigéen ñëpp bénéficier wu ci loolu mooy suñu taxawaay fii tey moo waral suñu ñëw fii tey. man maa ngi tudd Dieynaba Wane Ndiaye ma amee bureau ONU fii ci senegal njëriñu ndaje bi moom dafay wane rek li nga xam ne ñu ngi koy liggéey ak REFAN mooy réseau des femmes agricultrices du Nord te BICIS BNP Paribas doo ñu ci jàppale ci ay at mën na nekk léegi ñetti at wala ñeenti at léegi li muy taxawee mooy dañu amoon ñeenti kuréel yoo xam ne ci lañ doon liggéey benn bu njëkk bi mooy man nan la ñuy fexee ba jigéen ñi am suuf am suuf bu ñoŋ beneen bi ñu ne nan la ñuy jigéen ñi di amee jumtukaay yi nga xam ne mooy tax ñuy bay bay bu rafet bi ci topp ñu ni nan la ñuy amee financement ndax booy liggéey itam fokk nga am alal bi tax nga am finance nga am liggéey bu ci mujjeel mooy nan la ñuy fexe ba ñuy jaay li nga xam ne ñu ngi koy bay wala ñu ngi koy defar léegi nag tey li ñu dajale fii mooy plateforme bi dafay tax jigéen ñi mën a jaay te fekk du ñu sonn duñu duñu seen njëriñ seen njaay du loru ba pare duñu sax dem fu sore parce que ci biir téléphone yi def nañu ba nga xam ni ñoom daañu mën a présenter lu ñuy jaay te képp ku bëgg jënd lu mel na ceebu waalo bëgg a jënd euh, légumes ak yooyu yëpp mën nga ko ak ñoom ci téléphone bi ba nga xam ne daa mën a jot sa produit ñoom tamit daa ñuy jaay seen jaay loolu moo ñu fi indi tey gis nañu nag ni partenaires yu bare ñu ngi ci am nañ ci intérêt ñu ngi jëlee jëf itam ministère de la femme bi nga xam ne lépp ci loxoom lay mujjee. ndax mi ngi def ay programme yu bari yu mel ni mais ministère de la femme moo amee kuréel yëpp moo ko jiite i tamit moom mooy récupérer yëpp pour que plateforme bi mën a ñoŋ mën a continuer. man maa ngi tudd Korka di président Refane réseau des femmes agricultrices du nord euh, tey li ñu fi indi mooy kontaan rek ndax bu ñu commencé euh, deux mille dix huit ak ONU Femmes dafa am quatre piliers yu ñu tegoon accès à la terre. accès au financement accès au matériel accès au marché tey nag accès nañu au marché moom la doon lancé tey accès au marché de euh, paasewul nga tëdd sa kaw laal nga mën a jaay fekk génni woo sax nga jaay balaa ngay bay fekk jaay nga loolu nag euh, def ñu indil mbégte bu baax a baax tax na ba formé nañu fanweeri relais ak juróom yoo xam ne ñoom ñoo yore programme bi ñooy def suivi bi ñu ñu évaluer ñu xool ndax jigéen ñi fii ñëw nekkoon daaw ak ren naka la ñu ñaata la ñu jaay ñoo am si contente nag ànd seeg euh, ministre de la femme ànd seeg BMP Paribas ñu ngi taxaw suñu gannaaw ànd ak partenaire ak ARD ñu kontaan bu baax ñun refaan ndax ñun dañu ne daal suñu produire ngi ñu jaay defe naa daañu daañu xeex ñàkk loolu mooy xeex ñàkk loolu mooy tax jigéen bi am autonomie ndax soo ñu wax ne autonomisation de la femme ne fekk am na loo loo loo téye pour mun a tey nag kontaan nañu torop torop torop euh, taxawal tey plateforme bi ñu lancé ko mu nekk mbégte Refane mu nekk mbégte région de Saint-Louis nekk nekk mbégte Sénégal yëpp kontaan nañu torop ñun jigéenu Refane. ndax ñun dañu ne accès à la terre moom fokk jigéen ñi am suuf suuf bu baax suuf boo xam ne daañu ko mën a béy du du accès accès à la terre accès à la terre boo xam ne mën nga ko béy ñu ne accès euh, kii financement bi ñu ngi ciy xaar bu baax ndax ñun 16000 mille quelques membres lañu. xam nga pour ñu am financement ñun ñëpp du du du lu yomb am na ñu am am na ñoo xam ne amagul formation ñu ngi si am formé nañu formation bu am solo ñu ngi formé jigéen ñi former xale jigéen ñi suñu relève yi ñu ngi leen di préparer ñooñu yëpp dañu préparer ku ñu former leen ñu am financement ñu accès accès de la terre ñu am accès au marché kon ñun ñu ngi koy xaar bu baax di ko xaar si ministre de la femme di ko xaar si ONU Femmes di ko xaar si BNP ba